jaajëfatee jaajëfatee sama gars man na Mister Shake depuis Brooklyn New York ñëw tey wax leen ci Adji Sarr yëngalaat na réew mi ajisaar Sarr ajisaar xale bu doy ñoom sànneex ñoo def benn théâtre tuddee ko Adji Sarr waaye lii xale bi nga gis boo ko xoolee danga naan Adji Sarr la xale bu bandi xale bu doy xale boo xam ne dañ ne arnaqueuse la moom ci boppam mu ne moom mooy guy gi moom mooy yëngal te te yëngalagul sax xam nga mu wane sànneex muy wane aji saar aji saar jox ko trois cent mille ne ko yóbbu ko jumaa ji sànneex ne ko trois cent mille yii duma ko yóbbu ci jumaa ji parce que xam naa ci li ngay yëngu maanaam ci yow li ngay def du jigéen bu baax moo koy def xëy na dañoo bëgg wax ne yëfu saay-saay lay def ngeen baal ma ci wax ji xëy na dañu bëgg wax ne yëfu cagalay def ndax xale bi ñu wane ak làmmiñ bi nga xam ne daf ko bëtt def ci jaaro Cheikh Ndiaye di ko wax naan ko dinaa la euh, sëyloo te doo mus am jëkkër di ko wax dinaa la sàccloo loo musul sàcc di ko wax dinaa la maaseloo koo musul maase mais yëf yu doy waar ñu loolu tax maître El Hadj Diouf ci boppam mu nee na da leen di porter plainte waaw ndax kat nee na dañuy yàq deru Adji Sarr nee na day porte plainte léegi Adji Sarr ci boppam ñu wane ko mu nekk ci ay deal am na lu muy jaay kenn xamul lan lay jaay ah ñu wane ko muy muy def lu ñuy wax chantage bi maanaa mu jël ay photo benn euh, kilifa di ko wax nag vingt quatre heures la may maanaam benn fan laala may ngir nga jox ma ñaari million boo ma joxul ñaari million photo yi dinaa ko wane loolu kat mooy lan mooy ne xëy na aji saar dafa seq mooy xale bi ñuy wax ne moo tudd aji saar ci ci ci théâtre bi dafa seq góor gi nax ko daal di ko filmer wala mu foto ko waaw mu foto ko noo ko noo xam ne ah solu yére so deful dara wala xëy na ba mu koy maase léegi léegi nag ne ko boo ma joxul deux millions dinaa génne photo yi loolu lañuy wax chantage ndax kat boo xool dañ ne Adji Sarr loolu la def Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko kat dañ ne Adji Sarr da kaa maase waaw léegi daf ko amaase euh, euh, ci biir maase bi nag nekkati yoo Adji Sarr soxna Adji Sarr dafa doon ut ay preuve waaw ñu bëri sax dañu yaakaaroon ne xëy na moom bu muusoon day ut ay vidéo wala mu ut ay photo waaye nit ñi li ñu wax maître Diouf nee na am nañ ay preuve yu ñu bëri nag dañ yaakaar ne yu la am ci Ousmane Sonko te loolu mënuñu toog fenn ba ne Ousmane Sonko moom moom maniyu boobu ci moom la jóge loolu du ay preuve waaye li tax Maître El Hadji Diouf mer li tax Maître El Hadji Diouf ne dafay porte plainte xale bi boo ko xoolee dafay nduróog Adji Sarr ñoo nduróo yaram ñoo nduróo seen seen xeesaay ah seen xeesal bi ñoo ko nduróo ñoo nduróo façon cheveux yi ñuy sol xale bu wow bët mais man dama ko seetaan ay ree mooma jàpp ñoom Sanekh am nañu fit sànneex nag nee na ñoom euh, euh, théâtre bi du du soleil levant nee na benn ci li ma liir boog benn jarbaatu euh, Cheikh Niane mi nga xam ne soleil levent la la la nekk moo defar théâtre bi ñoom ñu bëgg ko jàppale di ko wane ci biir koor gi mais lii dafa doy waar ce que lii dinañ ko wane man dama xamul sax weeru koor nan la ñuy defee ay théâtre yu mel nii théâtre yi kat bu fekkee na koy defar pour ñaawal Adji saar mais booy xool ci benn côté tamit yaa ngi yaa ngi dekkalaat wax ji yaa ngi indiwaat waxu aji Sarr te dañ ne woon yëf yi dañ ko war a gas ñu suul waaye waa APR ñoom ñoo bañ a suul yëf yi gis nañ fi ay kura makki génn fi ne dañuy def marche fële place de l'obélisque moom ak ay de patra nit ñi ne nañu fàtte aji Sarr waa jigéenu APR yi ñu génn fan yëpp ñu ne yëpp yi il faut mu leer il faut mu dem tribunal nee naa leen yëf yi du dem tribunal man waxoon naa leen yëf yi du dem tribunal dañuy soob ndax ku ndubin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw waa APR dañuy sóob te gis nga newoon naa leen Ousmane Sonko dootul toog ak juge Samba Sall waaw parce que pour man amuñu fit naan dañuy woowaat Ousmane Sonko tribunal woo Ousmane Sonko tribunal moo taxoon dëkk bi takk gën a takk bokk waaw te man ba may wax xalaat moon Euh, juge Samba Sall yàlla da koy day jël bakkanam waaye gis nga li yàlla def newoon naa duñu gisante ñoom ñaar waaye gis nga li yàlla def mu feebar yàlla jël ko yàlla na ko yàlla yërëm te yéex a ñu <coughs> ba pare li ci doy waar nekkati yoo juge Samba Sall bi ñuy wax ni dafa am fit bi ñuy wax ne du tiit du ragal ndax koo xam ne yaa yaa jàppalu euh, euh, Khalifa Sall Karim Wade ñeneen ak ñeneen dañ ne Ousmane Sonko du la jaaxal nekkati Khoureychi Ba ci boppam nee na juge bi dafa tiitoon wax ji dafa bëri woon ba nga xam ne ñu mu waxee daal juge bi dafa tiit ba famille am mu toxal leen ni ñuy wax déménager ndax wax ji bu mu bëree ba bëri dafa jël famille am mu dem dëkkal leen feneen te waa APR yéeguñu juge yéeguñu Macky Sall yéeguñu kenn yéeguñu ba pare mu woo Khoureychi Ba mu ne ko man dafa mel ne ci ay gént laa nekkoon jour boobu le 5 février mooy ba ñu rawalee Sonko quatre heures du matin yóbbu ko tribunal avocat yi di seet Sonko avocat Sonko yi naan ana Sonko ana Sonko ana Sonko xure kii euh, Samba Sall nee na euh, juge euh, nee na avocat Khoureyssi Ba nee na ko jour boobu dafa mel dañ maa xabtal te dama ndoroon signé mandat de dépôt ngir ñu jàpp Sonko waaye yow ba nga ñëwee nga fëgg ci bunt bi looloo tax sax après ma woo gendarme yi mais ba ngeen ñëwee après ci laa ne na ñëwaat lundi ci laa ko bay kon kon affaire bi dafa garaaw garaaw boo xam ne man gëm naa ne Ousmane Sonko xanaa amatuñu fit surtout ak koor yi di ñëw naan dañuy dañuy jël euh, beneen juge du ko jox ban juge sax mooy ñeme waaye Maître El Hadji mii di porte plainte dafay wane ne moom bàyyiwul waaw te ñoom Sanekh man gëm naa ne théâtre bi est-ce que léegi dinañ ko wane wala luñ ko wane gëmuma ne dinañ ko wane ndax kat nañu waxante dëgg Adji Sarr mii kat Sénégal yëpp dañ ko duut baaraamu tuuma ñoom saa neex lii kat boo ko seetaanee dinga xam ne ne Adji Sarr deram dafa gën a yàqu waaye nag moom bu deram yàqoo moom moo ko def ndax ngay ànd ak ay nit joxuñu la dara ah di la di la di la wax waxal ne dañ laa siif ba pare ku makki génn mu ne yow yow yow moom moo lay jox xaalis moom moo la prendre en charge kon Adji Sarr da doon jooy ba Koura Macky di wax ak moom ba Koura makki sax mu dul wax ak moom jël téléphone bi jox ko euh, Aïda Patra Adji Sarr ne dafa sonn yaa ngi may dégg ñun nag yëfi daal doy na waar maître El Hadj dañ ne tey lay porte plainte ñoom saa neex nag changé nañ tur bi changé nañ tur bi léegi théâtre bi tuddatul Adji Sarr <laughs> waaye ñëpp xam nañ ne aji Sarr lañuy ñuy waxal man de gëj naa seetaan ah, ay ay sketch sax duma ko seetaan waaw mais lii moom dama ko xool léegi def mu di commencé ree te am na nu muy demee ma seetaan ko bu dee bu dee Babacar Diagne CNRA bu dee dinañ bàyyi mu jàll mais yëf yi doy na waar lool lii nag dafa war a yee Adji saar mu dindi plaintam fii léegi dindiwul plaintam deram dafay gën a yàqu ñëpp xam nañu ne moom moo tooñ Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu dee dafa dem pour maase wu am na droit maase wu waaye du wax naan Ousmane Sonko dafa laa siif te yow ñëpp gis nañu certificat médical bi docteur bi nee na yow euh, fukki waxtu ak juróom euh, benn yu yu jot a jàll ci démb sa sëyuloo ak kenn. ba pare ñu gis ne complot la ñu gis ne waa APR ñu ngi wax ak yow ñoom Birima Ndiaye ñu ngi wax ak yow ñoom Koura Mbacké ñu ngi wax ak yow yaa ngi may dégg <coughs> loolu moo tax nit fukki nit ak juróom daal di ci dee ñii gaañu ci ay policier gaañu ci sëñ Mountakha wax na lépp sedd yéen ngeen dëgër bopp rek dëggër bopp moo tax tamit ñu mel ne saa neex tamit di ko gën a di ko gën a xambaat man ñu ñuy wax rek mooy maître El Hadj moom xam nañ ne du bàyyi waaye Adji Sarr ci bopp moo war a am fulla am fayda daal di retiré plainte am bu ko retiré nag retiré wul der deram day gën a yàqu ñu mel ne ñoom Sanex di ko gën a ñaawal jaajëf monsieur man la monsieur Cheikh gars yi like leen partagé leen jaajëf jaajëf abonné wu leen jaajëf merci.